murtajan minnatun lana jari wa munjin min sunubin wa min mbokk yi nuy déglu te dinu seetaan ci sunu émission bi ñu tuddee madinatu ilmi muy jataay yoo xamante ni dañ ci waxtaanee lépp loo xamante ni lu itteel la rawatina lu jëm ci xam-xam ak lu jëm ci loo xamante ni doomu aadama def ci mën a jariñoo tey jii nag ñu indil leen thème boo xamante ni mooy njiit lu jub njiit loo xamante ni dafa jub ba noppi maandu ba noppi dëggu njiit loolu nag ñu jël exemple comme ku mel ne Omar ibn Abdul Aziz Omar ibn dafa doonoon njiit lu juba juba jub ba boroom xam-xam yi tudde nañ ko ci alxulafaawu raasidoona boole nañ ko ci <coughs> ñent ñi nga xam ne ñoo wutu woon yonent bi di saxaaba yi Seydina Abu Bakar Omar Ousmane Aliou wax na ni ki leen juróomeel mooy ki nga xam ne moo di Omar ibnu Abdul Aziz li ko waral nag mooy ak maandoom ak jubam aku meloom looloo tax ñu bëgg képp koo xamante ni yàlla def na nga doon njiit yore responsabilité yaa xam njiit lu tàmbalee ci sa kër waaye njiit lu tàmbalee ci sa boo amul woon kër sax boo amul woon doom sax boo amul woon jarbaat boo yar sax wala sœur boo yar wala koo xam yaa ko jiite sa juróom-ñaari cër yi nga yor ëllëg yomal xiyaam dan la koy laaj rawatina ku jiite mbooloo wala ku jiite ab société wala nga doon ab imaam wala nga yor loo xamante ni yaa jiite mbooloo wala muy société boo jiite euh, loolu dan la koy laaj ëllëg yomal xiyaam ak responsabilité bi am Omar Ibn Abdou nag dafa doonoon njiit lu jub lu maandu loo xamante ni daawut fawee alal askan wi daawut jël kenn àqam mu xañ ko ko daawul jël borom alal yi mu teg leen ca kaw jël néew ci doole bi yàlla dogalee moom mu doon njiit jiite jullit yi bi mu leen di jiite sax dafa fekk na dafa bañoon lu yàgg-yàgg ndax ki nga xam ne moo jiite woon jullit yi bi mu demee bay faatu xelam dafa nekk ci tànn njiit mu bind wenn bataaxel wax ne bataaxel bi yóbbu leen ma ko te nu woo jullit yépp ñu jaayante ci bataaxel bi ki ma ci def te booba ki mu ci def kenn xamul ku doon ndax booba fekk na mu wéradi fekk na mu dem ba mu yëg na ne li des ci ob fanam bareetul mu tànnal leen jiit wax na na ñépp jaayante ci ki ma def ci bataaxel bi Omar ibn Abdou Aziz wax na kii indi woon bataaxel bi ne ko mbaa defunuma ci bataaxel bi mu ne ko ah xaw ma ku ñu ci def de ñu dikk ñépp jaayante bi ñu jaayante ba toog ay fan buur bi nelaw ñu ne kon nañ leen teppi ki nga xam ne moom la Omar moom la buur bi defoon ci leetar bi pour ñu jaayanteek moom bi nu ko teppee gis ne Omar ibnu Abdou Aziz la Omar bi nu teppee leetar bi bataaxel bi ba gis ne moo ci nekk dafa jooy jooy yu metti daal di woowaat jullit yépp ne leen képp koo xamante ni dangaa ñëwoon jaayante ci leetar bi ñëwal firiwaat naa jaayante ko ndax man bëgguma leen a jiite ñépp ñe ko duñu ko firi yow yaanu doy jaayante bi d'accord na ñun ñépp ñépp àndandoo ne ko déedéet duñ ko firi Omar moytu fu nekk mu poyti poy fa ngir rëcc ci jiite gi waaye yàlla dogal kenn mënta fexe ba mu rëcc ñépp ne ko yow lan jaayanteel mu toog xam ne loolu nag li wolof yi wax bay wës na bay wëy na mbuus mu daal nag daal di nangu liñ ko jiital bin ko jiitalee nag daa daal di tàmbali ci moom ci boppam wax ne ñi nga xam ne yéen jullit yi dama leen di jiite waaye gënuma leen dama bëgg bu fekkee ne yàlla dogal na gis ngeen ma ma jubal ngeen ànd ak man su ma dëngalee ngeen jubbanti ma wax na ne Omar ibnu Xataab moom it loolu la waxoon Seydina Abu Bakar bi ñu ko falee loolu la wax Seydina Omar bi mu ko waxee Seydina Omar mu mag nga xam ne moom lañ tuddee Omar mii sa maam la ci moom bi ñu ko waxee Omar dafa am ku yëkkati jaaseem ne ko boo dëngee buñ lay jubbanti suñu jaasi ji lañ lay jubbante Seydina Omar ne alhamdulilah ginnaaw xeetu yonante bi am na ci koo xamante nii bu ma dëngee jaasi leen may jubbante kooko sama xel dal na Omar ibn Abdosis daal di tàmbali bi mu tàmbalee daal di woo soxnaam soxnaam fekk ne buur moo ko juróon buur boobu moo ko juróon mu woo ko ne ko yow kat gis naa ne bi sa baay nekkee ci nguur gi danga bari alal lool or bii tamit bari na lool ci sa armuwaal bi dama bëgg or bii nga yoroon te sa baay joxoon la ko tam jóge woon ci alali jullit yi dama bëgg loolu lépp nga delloo ko ci keesu baytil maal su fekkee bëgg nga sunu ànd bi sunu sëy bi continuer loola danga koy def bu fekkee nag bëggoo sëy bi dem ñu ñaanalante fii rek soxna si doon ku baax ne ko waaw loolu koy mën naa la ko jox lépp mu wëq li ci armaalam ak kontam yi amoon lépp mar jël ko daal di woote def ko ci baytil maal wax na ne bi nga xamee ne boroom xam-xam benn boo xamante ni dafa wax ne yéen ñi nga xam ne da ngeen a bëgg ku leen jiite yéen ñi boroom xamu xamu réew mi ak boroom xamu xamu dëkk bi dama bëggoon yéen ñépp ngeen wéet la luy yàgg di bind njiit lu baax lu maandu ak ni ngeen bëgg ku leen jiite mel ni bu ngeen tànnee ba noppi bu ngeen dikkee di ngeen fekk la ngeen tànnoon lépp nekk ci Omar Ibn Abdou Aziz amaana sax ngeen fekk loo xamante nii tànnu leen ko woon te loola dana nekk ci Omar Ibn Abdou Aziz kon kilifa gu mat kilifaa ngi nii koo xamante ni ku ñépp xam la Omar daal di tàmbali bi Omar tàmbalee daal di woo ñi nga xam ne ñooy ay gouverneur ñoo ko nekkal ci rason yi ak ci nàngam mu ne leen yéen ñi kat dama bëgg ngeen ñëw ñu waxtaan seet ni nga xam ne mbir mii ni lan ma ko joxe ak nan lan ciy liggéeye <coughs> daa di woote daa di woo ku nekk mu ne la def ak ñoom lël bu yàgg ni leen li ma bëgg mooy dama bëgg lempo yi ngeen di fayu ak taxes yi ngeen di fayee ci seen raison yi taxes yu ngeen ci fayeeku na ngeen ko denc su ngeen gisee ne lu ngeen war a liggéey seenam seen ab gox wala ci seen ab raison la ngeen fayeeku mën na koo liggéey ngeen liggéey ko ca lu ngeen desal ca seen kees ngeen indi ko ñu def ko ci baytil koo xamante ni nag fekk ne sa kees la fa nekk la nga fayeeku mënta liggéey sa raison wax ma ko ma tibb ci keesu baytil maal gi jox la nga liggéey ci sa raison wax na ne noonu la ñëpp ñu daal di koy tàmbalee di ko liggéey di liggéey Omar bi muy toog mi ngi amoon fanweeri at ak ñett ak juróom wala ñett la nit ñi boroom xam-xam yi wax wax na ne ñetti at ñaari at ak juróomi weer ak tuuti la toog waaye li mu réalisé ak li mu liggéey wuute na ak lool ñi nga xam ne dañuy wax na fal leen ma juróom-ñaari at juróom-ñaari jeexe ñu bëggaat ne sama liggéey dafa àggut sànce yi ma tàmbali woon waaye ci ñaari at ci la liggéey chantier yi may bëgg lim daldi tàmbali liggéey dëkk yi tàmbali dëkk bu ci nekk tàmbalee ne leen. fexe ba liggéey ñu liggéey dëkk réew mi fexe ba alal ji tamit ñu ñoŋal ko daldi leen di wax ne leen ñu tàmbali mu daal tàmbali ci dëkk yi mu fay liggéey ay kër ay kër yoo xamante ni yu baax la yoo xamante ni lim ci jublu mooy. kër yooyee gan gu dikk boo dikkee da nga fa mën a dal gan goo xamante ni ñëw nga danga nga mën a dal ci kër yooyu nga xam ne moom la Omar ibnu Abdou Aziz liggéey Omar di liggéey ba mujj mu liggéey kër yu bari yoo xamante ni tey foo tukki woon boo demoon cib dëkk masala boo jóge woon fii Ndakaaru jëm Tàmba boo àggee danga nga mën a liggéey danga nga mën a dal ci kër googu ba kere sa itte di mat lu mat ñetti fan wala nangam sa lekk ak sa naan mu wut ñu ko fa nekk mu mujj ci dëkk yi nga xam ne yoon yi dafa sori mu mujj ci àll bi mu fay liggéey ay kër yoo xamante ni kër yooyu daf ko fay def pour képp koo xam ne da ngay dox ba ci yàgg nga bëgg fanaan foofa wala nga bëgg a noppalu mu daal di la fay def mu def fa kër wut ñu fa nekk def fa seen lekk def fa seen naan ba ñaari fan yi nga fay am wala ñetti fan wala boo fa dee yendu wala boo dee fanaan ba bët seet nga demaat danga ko fa am mujj mu tàmbali liggéey raison yi tàmbali fu ci nekk. mu woo ñi nga xam ne ñoom ay jàngalekat la noonu borom xam-xam mu ne leen yéen ñii kat dama bëgg képp koo xam ne danga doon jàngale la nga doon jàngale matut lan la doon fay doyut sa njaboot ñu yokkal la ko waaye buñ la ko yokkalee nag nga def sa itte jëpp muy jàng ak jàngale muy jàngale ni ngeen fexe ba yéen bu leen bokk ci ñi nga xam ne dañuy wutaat ay école yoo xamante ni dañuy wax école yu primaire la école yoo xamante yu privé la di liggéey ci état bi ba noppi am ne leen na ngeen fexe képp koo xamante da nga ci doon fayeeku lu mat ñaari postu te doo ko liggéey mu jël ko képp koo xamante ni tamit sa soldu dafa bari woon wala nga yoroon ñaari soldu mu wàññi sa soldu ba seet li yem li doy ci sa njaboot mu jox la ko. woo médecin yi ne leen yéen ñi nga xam ne da ngeen di faj nit ñi te ku nekk xam na ne ak wér moom la ñëpp di soxlawoo na ngeen fexe ba yéen it ngeen di liggéey waxtu te képp koo xam ne da nga ci ubbi woon cabine boole ko di liggéey fii di kar client di leen yóbbu fële. na nga xam ne loolu dakk na bis ni tey képp koo xamante nii da nga cee yoroon ñaari solde wala ñetti solde tamit wala lan la doon fay bari na ba ëpp ndax post yun la doon neexale loola dañ koy wàññi képp koo xam ne tamit sa solde matut sa njaboot ñu yokkal la Omar tàmbali noonu nit ñi tàmbali di liggéey mu tàmbali wax ci raison yi ne leen yéen ñi nga xam ne yéen a nekk ci raison yi seetal leen ma képp koo xamante nii jërim la boo xamante nii baayam dafa gaañu ndeyam gaañu mu doon xale ngeen wax ma ko ma wutal ko warlul ko dundam ak am njàngam ak pajom képp koo xamante ni silmaxa la koo xamante nii dafa silmaxa da ngeen ma ko wax ma wutal leen ku koy wommat ak ku koy toppatoo ñu di ko fay daan leen képp koo xamante ni dafa feebar na ngeen ma wax ko ma faj ko wutal ko ñu koy toppatoo ay surga ñu di ko faj ba kera muy wér képp koo xamante ni jëkkëram dafa faatu mu nekk mag kenn yoru ko amul borom kër wala dara ngeen wax ma ko bu fekkee ku laaj ñu koy dimbali wala ñu koy yor wala ñu koy wutal ci alal yi ñu wutal ko ngeen seetal ma xale yi nga xam ne danoo toog toll ci war a liggéey te na luñ liggéey ma wutal leen liggéey toppoo noonu wax ñi nga xam ne danoo yoroon ay bor mu ne leen seetal leen ma ñi yor ay bor ci réew mi ak seen raison yi ngeen nekk bor yoo xamante ni mën nu koo fay ma fay ko ñu bàyyi leen képp koo xam ne dañ koo tëjoon ngir dafa defoon banditisme ba nu tëj ko mu ne na ngeen fexe mu génn ma laaj lan moo ko fa dugaloon wala bu fekkee daa war a fay nit xaalis ñu fay ko ñu tàmbali di génn nit ñi ci kaso yi di kii ñu dox tuuti kaso yi amatul kenn kenn koo xamante ni ñi doon liggéey wax ne ñoom amatul kenn ku ñu surveiller ñu mujj kaso yooyu ñu mujj tëj ko ñu mujj def kaso yi ay école ay école yoo xamante ni mujj fépp fu kaso nekkoon dañ koo soppali ko def ko école ñu cay jàng xale yi di fa jàng xam ngeen ne kooku wuute na lool ak ñi naa war a tabaxaat ay kaso wala dañoo war a yokkaat kaso yi wala nangam nga xool sunu réew mi ak feneen njiit yi nga xam ne am na ci dëkk yoo xam boo demoon xale yee ñii mënu amuñu fu jàng ñii bu ñu jàngee amuñu classe yu ñu ñii bu jàngee suba ñi ngoon la jàng ñiy jàng ci semaine bi benn yoon wala ñaari yoon mu mujj kaso yi noonu la def ba benn kaso amatul gisatoo ñu dox noonu ci la mujj kenn koo xamante ni dem nañ ba jamonoy Omar Ibn ci leen wax ne génne asaka dangay ngay génne asaka doo am koo ko jox réew mi mépp àdduna bépp ñëpp di génne asaka te amuñu kun ko jox Omar na leen kon nan ko dugal ci baytil maal ndax fekk na ñëpp ñu ngi am lu nu génne asaka ci dëkk ba. fi mu jiite ñu mujj ñëpp di génne asaka te loolu mu def lépp ci ñaari at ak juróomi weer ci la ko def Omar noonu la jàppoo ci maandoom xam ngeen ne loolu kon réew mu développé am na fa mu tàmbali woo ay nit ne leen yéen ñi juróom-ñaari borom xam-xam yoo xamante ni daf leen a woo ne leen dama bëgg yéen ngeen jàppale ma ci liggéey bi ndax liggéey bi metti na ndax jiite xeetu yonante bi sallallahu alayhi wa lu metti la dama bëgg ngeen jàppale ma di ma wax dëgg ñuy waxtaan waaye nag dama bëgg ñu waxtaan ci ñetti sar mooy tax ñu mën a ànd dama bëgg yéen guddi ba guddi laa leen di soxla pour ñu daje ñu waxtaan sart bi ma leen di tegal nag ñetti sart yi mooy fi ma nekk bu leen fi jëw kenn fi ma toogit bu leen ci waxtaan waxtaanu àdduna fi ma nekkit bu fa kenn dikk di yàq kenn ne leen bu kenn kaf fi ma nekk ci sama wet ñu ne ko waaw ñenn ci ñi ko doon liggéeyal wax nañ ne bu nu a toog ak Omar nee na ba waxtaan guddi gi nee na bu nu waxtaanee la ñuy waxtaane mooy lu dee ak la ca ginnaaw dee maanaam di waxtaan ci dee ak ni metteeg la nekk ca dee ak sukkuraat ak ginnaaw bàmmeel lan lay laaj nee na waxtaan yu mel noonu la ñuy waxtaan nee na bu nu jógee bay ñibbi bay tàggoo nee na bu ñuy tàggoo day mel ni danoo denc woon ab néew ba ne nan jàll ci kër ga ndax ñun ñëpp ku nekk di tiit nee na noonu lañ ko jàppoo jàppoo ko noonu Omar doonoon ku maandu nee na gouverneur yi mu faloon am na ci koo xamante ni ci alale askan wi nee na ba waa ji dafa ñëw ngir ñu war a waxtaan lu jëm ci wàllu gouvernement bi ak ci wàllu état bi nee na bi ñu dikkee fi mu nga xam ne fa la nekkoon fi muy biroom nekk sondeel bi mu doon taal wala lampe bi mu doon taal bi mu toogee di waxtaan ak waa ji ci guddi gi di waxtaan ak gouverneur bi ko doon rend compte wala préfet wala sous lu mu doon ba waxtaan wi àgg nee na waa ji tàmbali naa ko ana waa kër ga mbaa sa yaram wi mi ngi ci jàmm naka coono yi Omar nee na ma daal Omar daal di fay lampe pétrole bi nee na bi nu ko fayee ñu continuer di waxtaan ba waa ji di ñibbi bi ñuy ñibbi waa ji ne ko man de dama xaw a jaaxle ndax yow bi ñuy waxtaan gis naa ne bi nu demee ba nu waxtaan bi ma laajee ne la ana seen waa kër ana njaboot gi ak yooyu da ngaa fay làmp bi te boobu pétrole bi jeexul lu tax mu ne ko booba de li tax ma fay ko mooy. liñ doon waxtaan te jullit yi bokk ko boobu jeex na li nga may laaj nag sama njaboot ak sama waa kër loola moo tax ma fay ko xam ngeen ne kooku de wuute na lool ak ñi nga xam ne dañuy jël essence réew mi di ko dawale wala ñu jël oto yi état bi di ko dawal fu nekk ñu dem fa di ci dox yoo xamante ni bokkut ak la ñuy liggéey jël téléphone yi di ci téléphoné wala ñu jël courant bi di ko lakk ci loo xamante ni ah alal nit ñëpp a ko bokk wala mën naa am sax ñu la kees na la kees gi caisse noire la goo xam ne lu la neex def ci lu la neex wax ci lu la neex maye ci loo ci bëgg def def ko. loolu yaakaar naa wuute na lool ak Omar ibnu Abdou mi nga xam ne sondeel rek la doon kii Omar soxnaam si nga xam ne moo nekkoon muy Fatima nee na man dippi Omar nguur bi dafa mel ni amatuma dara lu neex lu naqari rek lay dund bi Omar nguur gi ba léegi lu naqari rek lay dund amatuma benn lu neex xam ngeen ne kooku de wuute na ak lool. kin naa jabaram ñu naa première dame moom moo yore kii bi mooy maye fii xaalis mooy pasar pasar nangam waaye nee na bi Omar yore nguur gi amatuma Omar nee na euh, benn jigéen dafa romb di ko xool wala ku góor ku ko xamoon bu yàgg ba nekk xale nga xam ne dafa silvise woon di peñe karawam di defar yaram wi rafet lool macha allah <coughs> Omar mas na di peñe karawam ba tardé julli àjjuma xam ngeen ne ko kon bëggoon na àdduna fonkoon na ko waaye teewul ko juble woon loolu lépp bëggoon àdduna waaye nee na bi ko falee nguur nee na fan yooyu man damaa gis Omar ma gis ko mu jeex takk karaw gi jaxasoo yaram wi tàmbali kii lex yi tàmbali nor ma daal di tàmbali di ko xool di ko xool ba ci ak Omar ne ma waa yow nii nga may xoole di dawoo man a xoole mu ne ko ah man damaa jaaxle rek ndax man dama laa xamoon bu yàgg-yàgg ba ngay nekk ma dina xamoon naa la nga nekkoon góor noo ma gisoon la nga jekkoon loolu macha allah yoroon karaw gu kii tey ma gis la nga mel nii Omar nee na ma daal di koy xool ba ci yàgg ma ne ko ah yow de boo ma gisoon bu ma amee ñetti fan ci bàmmeel nga gis sama bët yi sax yi lekk ko nga gis sama karaw gi suuf si muucu ko nga gis sama biir bi sax yi lekk ko ba yax yi dañ ci ginnaaw naa bu boobaa de lay gën a naqaree xool nee na ndaw si daal dem soxna si dem Omar di jooy soxnaam nettali ne na Omar mës na am benn bis mu julli gee bi mu jullee gee ba noppi nee na fi mu demoon di fa jullee nga xam ne fa lay jullee nee na bi mu jullee gee ba ñëw ba julli ñaari ràkka ma dégg ko mu yëkkati loxo yi di jooy di jooy di yëkkat di jooy di jooy bu jooyee yuuxu ba ma ne ah lii de xanaa tey roogi dem na neena ma jikki-jikki toog neena di ko dégg di ko dégg ba fajar Omar julli nee bi mu jullee fajar julli julli suba julli fa julli fajar ñaari ràkka julli suba nee na bi mu laata julli sa wax na ma indil ma tàndarma ma indil ko tàndarma mu dog ci mu mu mu mu jël ci ñetti tàndarma ndekate ma daal di koy bàyyi noonu nee na bi ma toogaatee bi mu ñëwee mu delloo fa mu nekkoon nee na yendoo noonu yendoo yoo ba digg bëccëg ndekate dafa nekk ci koor di jooy di jooy jooy ma ne ko waaw Omar looy def ni nii mu'miniina mu ne ko man kat looy jooy mbaa jàmm la yow lii yaa ngi koy fanaanee biig tey nga bëgg ko yendoo mu ne ko man daal damaa mujj xalaat ne lin ma gàll dafa rëy ndax yaa jiite xeetu yonante bi sallallahu alayhi wa sallam dafa rëy ndax xam naa ne boo demee nit a nga fu sore sori mënta ñëw ci man feebar wala nit a ngi ma soxla bëgg maa gis te mën maa gis nit a ngi nekk fu sori foo xamante ni war naa ko jox ci alal ji te gisuma ko jox ko ci loola nag tiitloo ma ma xam ne bu ëllëgee yomal xiyaam dinaa ko layoo te bu ma koy layoo ko yonante bi sallallahu alayhi moom mooy taxaw ma layoo kook moom loola moom ma tiitloo daal dina yëkkat di jooy yaakaar naa kooku moom <coughs> ku nekkoon xam nga ne wuute ak lool njiit yi nga xam ne mën naa am sax ñu woolu ku leen di tëggal ñuy fecc wala ñuy wadd waddi wala nga gis leen ñuy mel ni liñ leen falee comme li ma waxoon léegi ñu fal leen tuuti nga tàmbalee gis ñu ami lex seen biir yi tàmbali di jóg ndànk wuute ak lool ki nga xam ne ay lexam dafa mujj nor biiram tàmbali di wàññeeku waaye wute naag lool suñu gars yi nga xam ne koo ci fal balaa mat 3 mois nga gis biir bi sensé ah nga gis tàmbalee gis lex yi tàmbalee jóg ah, yooyu yaakaar naa mel ni sama lex yi kon yaakaar naa ne loolu ku nekk xam na ne du ragal yàlla Omar ibn Abd Aziz eh, soxnaam si nettaliwaat na nee na surgaam bi sax moo ko nettali surgaam bi nekkoon ci këram di ko liggéeyal nee dama romb Omar yor mbaam mi xëy liggéey ba wàcc ñu yor mbaam mi nee bi ma yoree mbaam mi di daw Omar woo ma ne ma kaay looy fa maanaam nit ñi ci lan lan nekk nit ñi lu ñuy dund ne ko kay fa alu naas nit ñi lu ci lan lan nekk mu ne ko Omar ñépp a nga ci jàmm ba mu des ma yow ak mbaam mi man ak yow daal ak mbaam mi ñun ñoo dund ñoo nekkul ci jàmm Omar bàyyi ko mu dem seetal tey ki nga xam ne sëfooru maanaam waaja rek wala ay mbokkam ku nu fal say mbokk ñoom ñépp ñooy ñëw di sar xolle di ree nala la lii mënoo ko woon a ñàkk bañ a am sa yaay ko fi liggéey wala sa baay liggéey yoo xamoon na ne faaw nga am teraanga loolu du teraanga responsabilité la nit ki bu ragalee yàlla lan koy fal responsabilité la doon waaye du lu nuy nguuroo ak lu ñuy xalemoo ak lu ñuy maye ay woykat wala lu ñuy maye ñoo xamante ni ay caaxaankat lan wala ngay pasar pasare alal ci mel ni yaa ko moom te fekk ne dañ la koo dénk te loolu ñu la dénk danañ la ko laaj ëllëg yamal xayaam <coughs> Omar nee na xam naa du jeex sax waaye surgaam bi wax na nee na dafa mas a dikk li ma la doon wax ne la Fatima nee na ba Omar yoree nguur gi ba léegi nguur gi neexut ci ñun nee na surga bi nee na dafa dikk Fatima soxna Omar jox ko ñebbe mu lekk xam naa ñebbe ñaar la wala ndambe nee na mu lekk bi mu lekkee daal di jóg daal di taxaw tiim ko ne waa yow man nga bis bu nekk ñebbe rek la ñuy añe moom la ñuy reere mu ne ko ah loolu da mooy ñamu kilifa gi Omar ci lay lekk man mi ci lay lekk xanaa lu Omar di lekk ma di ci lekk xanaa war nga cee mën a lekk nee na mu daan dem waaye sëñ bi xool leen loolu wute naag lool ñi nga xam ne seen kër bu nu faloo rek kër gi day changé seen meuble yeen fa defoon dañuy changé meuble oto yeen yoroon appartement yeen jëloon sax dañuy mujj changé foofa demaat feneen foo xamante ni moo gën a kii xam ngeen ni kii da ragal na yàlla xam naa ne comme waxtu bi dafa xat dinañ àggalewaat Omar Ibn Abdou Aziz ndax li mu réalisé waaye Omar xam ngeen ne kuy dund ku nekk danga nga faatu Omar ak faatuum dikk dinañ ñëw kon indil leen leneen li ci toppaat bu ko noppee nettali leen nan la Omar faatoo ak nan la génn àdduna ak lan la fi bàyyi ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp na moo nekkoon ci caméra bi soxna Awa moo nekkoon ci réalisé émission bi suñ baara moo nekkoon monteur bi ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen joxaat yeneen daje ci seen émission bi ñu tuddee Madinatul Ilmi